أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ci absence bu ñuy jéggalu sunu boroom wala xawma bër bu ñuy jéggalu sunu boroom yaakaar naa ne ba ñu gëjee toog ci néegu yàlla bi def dars léegi mu mat weer yaakaar naa ci lu ma jàpp mu nekkoon ci ay xat-xat préparation tabaski ak ya ca aju ñu war a tàmbaliwaat dars bi tey incha allah ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu nangul nu ko ba tey ñu toll ci suratu yusuf ñuy jël tey aaye 43 44 45 46 mu nekk ñeenti aaya yu ñu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróomi mbir ba ca jiitu mooy jawaaz ar ruya as saaliha yaraaha alkaafir walfaasiq ci lislaam dafa am réalité yoo xam ne ñépp ci bokk yem jullit ak yéeféer ñoo ci yem maanaam su fekkoon ne ci wàllu xam-xam la ci wàllu science ku ci góorgóorlu rekk raw sa moroom yéeféer yi bu ñu nangoo jàng raw jullit yi jullit yi bu ñu nangoo jàng raw yéeféer yi jullit bu nangoo bu yaafuusee nanguwul liggéey yéeféer nangoo liggéey yéeféer bi daf koy raw dafa am réalité yoo xam ne jullit ak yéeféer ñoo ci yem mu ngi mel ne ci mbirum gént gént jullit ak yéeféer a ci yem yenn saa yi jullit day gént gis lu baax naka noonu yéeféer day gént gis lu baax firawna ndax am na ku ko gën a bon mais gént na gis ne benn xale dafa war a juddu daaneel nguuram loolu dëgg la wala du dëgg Yuusuf Azizu Misra jamono ba muy gént dars bi ñuy lu jël tey ndax moom boobu jullit la du jullit kon mbirum gént ak mbirum gis-gis ñépp ci yem jullit bi day gént gis mu nekk dëgg yéeféer bi day gént gis mu nekk dëgg Xadija radiyallahu anha bi muy gént benn lumière jóge kaw asamaan di wàcc ci biir néegam boobu yàlla yónneegul sayyiduna muhammad moo tax bi mu gisee yonent yàlla muhammad mu xam ne kii moom la mu daal di ab mu daal di nangu lépp lu ko yonent bi wax kon dana dagan ar ruya as-saliha gént gu baax may gis-gis bu baax yaraaha di ko gis alkaafir yéefir wal fasiq ak kàccoor wal mumin awil muslim ñépp ci yem kàccoor bi day gént gis lu baax mu yeewu ne la man gis naa nangam yéeféer day gént gis lu baax mu yeewu ne la man gént naa nangam naka noonu jullit day gént gis lu baax mu yeewu ne la gént naa nangam ñoom ñépp ci yem wàllu woowu ñaareel bi mooy ar ruya nawaani gént ñaari façon la dafa am boo xam ne gis la moo tax gis nga yonent yi ibrahima dane inni ara fil manaami yusuf lan la wax yaa abati inni ara raaytu kon ñoom ñëpp dañoo gis amma gént nag mooy bi nga xam ne da ngaa tëdd ni di nelaw sa waay gis ñu lay diri di la yóbbu ngay bippu di bippu di bippu ba yeewu nga yeewu gis sa bopp yaa ngi ci kaw lal bi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin laa ilaha illallah benn waay dañ ko fekk hôpital mu ngi tëdd tànk yaa ngi damm nit ñi ne ko yow la la yow démb sa néeg la ñu waxtaan naan ataaya ñëpp ñibbi hôpital nga yeewoo tey lan la ba pare sa ñaari tànk damm mu ne yéen xamu leen lu xew gay ne ko lan la mu ne gis nga bi ma tëddee dama gént yowmal xiyaam ñu ne ko lan mu ne waaw mu ne ma gis oto yi rang oto yi oto yi bi ñu bind ci jannatu naim yii ñu bind firdaws yii ñu bind ilayin mu ne nit ñi di yéeg mu ne bi nit ñi yéegee yéeg yéeg ba mu des benn oto man ma ñëw yéeg waaye xooluma turu oto bi nee na oto bi di daw di daw di daw di daw di daw di daw ñu nekk ci ginnaaw ñun ba càgg benn waaye mu ne eh yow yow chauffeur yow yow doo yegg xanaa yow oto yëpp dem nañ ñun doogu ñoo fi des nee na chauffeur bi faalewu leen ñu dawaat dawaat ba ci yàgg eh yow chauffeur yow la ñu waxal mu ne mu ges muy seytaane mu ne yéen ma jëma leen jahannama ngeen na xaaral rek nee na fu mu toog mu tiit rek mu mu ubbi benn verre oto rek mu tëb ndeke moom boobu mu tiitee ci kaw lalam nelaw boobu dafa ñëw rek song balcon bi tëb mu daanu tànk yi damm mu xëm ñëw ko hôpital mu ximmili ko mu gis tànk yaa ngi damm docteur yi ne ko yow lan moo tax nga tëb étage bi la la mu nettali leen xisa bi mu ne jahannama laa la la lañ ma bëggoon yóbbu ma tëb ndeke gént la kon yenn saa yi yàlla tabaaraka wa taala day won nit pour mu dëpp léeg-léeg ñu won la nga nekk ci situation bu doy waar léeg-léeg nga nekk ci mbir yu ñàng waaye sunu borom subhanahu wa taala bëgg la cee génn mu won la ci gént léeg-léeg sax mu won la ne da nga tukki léeg-léeg mu won la dinañ la may nangam léeg-léeg mu won la léeg-léeg mu won la léeg-léeg mu won la comme ni mu wonee azizu misra kon mu ne ñaar la xilmun min alcheytan wa ruya min arrahman bu dee gént yu ñàng yu garaaw yooyu yooyu cheytaan moo koy def bu dee gis-gis nag loolu yàlla tabaraka wa taala moo la koy lënkawal nga daal di koy gis ñetteel mooy as an nisiyaan min sifatil basar danañ njàng tey fàtte fàtte xam nga lenn saa yi nga gis nit mu ne la man de damaa fàtte nangam nga bëgg koo mere wala nga koy jàppal dara c'est parce que nee na la damaa fàtte mën na am ngénte la wala céet la wala nangam la wala wala wala mu ne la damaa fàtte fàtte natiiru doomu aadama la kan moo njëkk a fàtte aadama wa laqad ahinna ila aadama min qablu fa nasiya moo tax borom xam dañuy wax awalu naas awalu naas ki njëkk ci nit ñi mooy ki njëkk a fàtte mooy aadama yàlla waxoon na ko bul jege garab gi mu dem jege ko dafa fàtte kon fàtte ñépp a koy def amul ku dul fàtte góor mag jigéen kilifa ku dul kilifa président de la république ñépp a ci yem fàtte la yàlla moo ñaale doomu aadama kon su la nit ne man damaa fàtte jàppal ko ngànt xam ne dafa fàtte du rëy du nangam am na ci doomu aadama yoo xam ne boo leen ne damaa fàtte duñ ko mun a nangu lu tax nga koy fàtte mais doomu aadama laa damay fàtte amul ku dul fàtte ci kaw suuf yàlla moo def loolu loolu min sifatil basar dafa bokk ci melakaanu doomu aadama ñeenteel mooy jawaaz wasful insaan bi ma fihi min gayri itra ka qawlihi ayuha siddiq léeg-léeg nga gis kenn nga wax ko yenn baat nga tagge ko ko loolu dara nekku ci ndax kat prisonnier bi fekk na Yuusuf ci kaso bi mu ne ko ayuha siddiq lu tax parce que gis na Yuusuf lu mu wax mu nekk dëgg mu daal di jël baat boobu daal di ko koy yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu gisee Abu Bakar mu nekk ku dëgg lan la ko wax as-siddiq bi mu gisee Ousmane ibnu Affan mu mu mu am kersa lool lan la ko tuddee bi mu gisee Omar ibnu al-Khattab ñeme dëgg lool lan la ko tuddee bi mu gisee Ali am xam-xam lool nan la ko tuddee ku nekk am nga sa benn dàkkantal buñ la tuddee ni ñu tuddee Aboubacar as-Siddiq noonu lañ tuddee Omar. al Faaruq ñu tuddee Ousmane Zunurayni ñu tuddee Ali ñu tuddee Ali loolu siyaa yi ñoo ko ko tuddee karramallahu wajhahu loolu siyaa yi ñoo ko moom amma sunna ban dàkkantal lay indi Ali ah bon yéen ñi ngeen xam ñeneen ñi xamu leen Ali ah waaw mën na nekk de ana madinatul ilmi wal ali baabuha juróomeel mooy laalla takunu bi maana kay ak taali loolu moom mbirum naxu la ñu jàng naxu ñoom ñoom moom loolu laalla day am yenn saa yi maana boo xamante ne maana bi kay la ak taxliil la loolu bu ñëwee ci biir dars bi dina feeñ foofu ci ñi jàng naxu incha allah ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi jazakumullahu xeyran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
barakallahu fiik jazakumullahu xeyran al na la yàlla fayal yiw sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy nettali ba tey qissa bi mu ne wa qaala al maliku buur bi nee na al malik moom mooy azizu misra wazirun min wazairihi wasmuhu arrayyan ibnul walid turam dëgg noonu la tudd al arrayyan ibnul walid moom mooy premier ministre Égypte moom buur boobu moom moo ne inni ara man de gis naa est-ce que daf ko gis nii ak bëtam jaxaran fan la ko gisee lu mu tëddee di nelaw la ko yàlla wan gént ak wan ça fait deux gé wan moom réalité lay doon lii lii daf koy gis nii jaxaran boo yeewu di ci teg bët wala ay quelque temps ay fan nga teg ci bët wala ay weer nga teg ci bët wala ay at nga teg ci bët xam ngeen ne gént gi buur bi gis ba muy am ñaata année la ah ñaata at la sunu borom ne jalla jalaalu wa zakamaalu buur bi nee na inni ara sab'a baqarat gis naa juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu ngand mel ne nag yooyu nga xam ne dañ leen di pikiir ponkalu nag daanaka buñ ci reyee benn dëkk bi lekk ba suur juróom-ñaar yu tol noonu yu ngand la gis yaakuluhunna waaye juróom-ñaar yu ngand yooyu dafa gis lu doy waar yaakuluhunna sab'un ijaf mu gis yenn yoo xam ne dañoo wow koŋ koŋ koŋ koŋ di lekk juróom-ñaar yu ngand yi au contraire dañ ñoo waroon lekkaate ah ngand yi yu duuf yi waaye mu gis yooyu ndeysaan ñoom ñoo ñëw yooyu yooyu yi nga xam ne ijaaf dañoo xiif ba seen yàpp yi ak seen der yi di laalante ndax loolu rek la gis wa sab'a sumbulaat mu gis juróom ñaari mbool xam ngeen mbool ah mboq mboq loolu ñuy dagg nii di ko lakk nu mu tudd ah ana ana ana ñi jàng olof yi mboq su fekkee pulaar on mbi yotoon sammeere su dee bu dee bu dee olof mboq non mboq mooy lépp mooy mbool bi du dëgg bu dee dugub la ñu ne mooy mbool bi benn bi def nii mais bu dee mboq la benn bi cabb bi loolu la gis moom tamit sab'u sumbulaat xudar mu gis yu verte wa uxra yaabisaat mu gis yeneen set yoo xam ne dañoo wow kon yii ñu ngi vert yii ñu ngi wow kon réalité buur bi la mu gis ci gént gi yépp boo ko doon xool ñaata mbir la ah ñaata la dégguma buur bi li mu gis ci gént gi yépp ñaata mbir la non du ñaar ñeent la gis ndax dafa gis ñaari façon nag mu gisaat ñaari façon mboq ñaari façon dugub ñaari façon nag yi dañoo wuute benn nag bi dafa dafa dafa duuf am yàpp beneen nag bi dafa wow kongu xiif mu gisaat mboq boo xamante ne daa tooy xepp verte mu gisaat boo xam ne mu ngi wow koŋ koŋ koŋ koŋ ba kenn mënu ko laal ah bu mu gisee loolu ci biir gént gi brusquement dafa yeewu am na gént boo xam ne soo ko géntee dootoo mën a continuer say nelaw da ngay yeewu directement da ko gis rek yeewu bu mu yeewoo fekk mu ngi ci kaw lal bi mu wàcc jabar ji ne ko lal la kaay tëdd mu ne ko noonu mënumaa tëdd muy doxantu ci kaw balcon bi yàkkamti bët set pour lan pour mu mu dajale dëkk bi pour ñu wax ko lii lan la juróom ñaari nag yu duuf ak juróom ñaari nag yu xiif yi xiif yi di lekk yi duuf yi ma gisaat ay mboq juróom ñaar ma gisaat mboq bu wow juróom ñaar ah lii lan la allahu akbar fekk suñu borom subhanahu wa taala yenn saa yi ci ay programme am day won nit ñi lu ñu war a def waaye ndeke ci ay gént la koy jaarale ci ay gis-gisu gént loolu jàng nañ ko ci xisasul ambiya jàng nañ ko ci xista nit ñu baax ñi ba fii ñu toog ni ci àddina bi am na ñoo xamante ne ci doomu aadama yi suñu géntee gis la gis dara soo moytuwul buñ la ko waxee mu daal di am dama defar sama passeport ñu jox ma jour bu ma koy jëli GEDO bureau passeport ma dem ma jël passeport yi maa ngi toog nii ci car bi maa ngi ko dugal fii sama poche ndeyjoor sama portable sonné ma jël benn maire xam naa turam bëgguma ko wax mu ne ma dama gént nga dem màkk démb ci guddi ma ne ko ah sama passeport laa jëli woon de moo ngi ni pare na te moo ngi ni sama poche effectivement at boobu laa dem màkk te xool damaa dem ba jëli ko di ñëw di ñuy bisi mu woo ma téléphone ay 10 heures 11 heures mu woo ma ne ma damaa gént nga dem màkk ma ne ko sama passeport dalaa jëli woon moo ngi nii année boobu laa aji màkk laa ñëw ay fan may jàngale duma ko fàtte benn benn benn ngoon la woon ay 3 heures 4 heures sama portable sonné benn jigéen woo ma téléphone mu ne ma dama laa soxla léegi léegi léegi ci kër gi ma ne ko mbaa jàmm la mu daal di coupé ma jël oto daw ma jël keneen mu remplacé ma sama classe ma dem bi ma demee ma sone buntu këram mu ubbi ma ne ko mbaa jàmm la mu ne ma sama jëkkër moo ma takkal wujju rajaxe naa fii yëpp après muy muy ree ma ne ko du loolu mu ne ma lu tax du loolu parce que reetaan naa quoi ku ñu takkal wujju doo reetaan ma ne ko en tout cas du loolu parce que ni ngay reetaanee nii du loolu mu ne ma waa kaay toog nga xaar ma xaar ma ne ko lan la mu ne ma du ma la ko wax xoolal depuis 5 heures ba heure yi jëkkër ji wàcc donc ma wax ne dañ laa bëgg a yóbbu màkk màkk sama soxna damaa demoon liggéey ñu may ma ñaari billet ma ñëw ma jox ko benn bi ma jox sama yaay benn bi mu ne moom demul naa la jox naa la jox benn bi nga ànd ak maire bi nga won ko nu ñuy ajee xam nga yàlla lu mu def loolu lundi la woon mardi mercredi jeudi mu dem ñu mayaat ko beneen man ak ndaw su ñun ñoo ànd ñun ñett ñun ñoo mujj ànd jeudi bi mu xëyaa dañ ko mayaat beneen ñu mujj def voyage bi benn ñun ñett ñëpp ñu dem kooku mayoon ma biyam dafa amaat biye nga xam ne def lu baax rek moom moo wóor daal man amila saalihan fa li nafsihi sunu borom subhanahu wa taala di ñu nettali buur bi bu mu gisee lii yëpp mu am problème nag léegi mënatul lekk mënul naan foog ñu wax ko lii lan la ci la dajale nit ñi mu ne yaa ayyuhal mala aftuuni fi ruyaaya waaye yéen mbooloo mi al mala ay al ashraaf wal ayaan dëkk boo dem am na fa ay personnalité am na fa ay kàngam am na fa ay kilifa am na fa ay autorité ñooñu la dajale mu ne leen aftuuni fi ruyaaya waaye sama gént gi wax leen ma lan la moo tax ci qisasul ambiya da ngay fekk dëkk bu nekk la ñuy jaay yàlla day day yónni yonant boo xam ne moo leen ko dàq dëkk bu nekk la ñuy jaay lan laa jublu ci lu ñuy jaay ah la ñuy tiitaroo di ngand ngandalu yàlla day yónni yonant boo xamante ne day mel na ci moom ndox ak ngelaw nitu daawuda lan lañ doon jaay defar ay mbubu guerre ak ay arme daawuda ñëw bu jëlee moom day jël weñ bi mu mel ne comme ndox mu koy sotti gars yi ne wow kii moom yàlla mu ne wa allal naa lahul hadid gars yi dañuy jël ndo fourneau di di upp moom yàlla da koy defal affaire bi muy walangaan day tànk rek di sotti di defar nasaraan yi lan lañ doon jaay ba yàlla yónni leen Isa mbirum médecine mbirum faj yàlla yónni Isa day ñëw fekk gumba mu ne ko xoolal bi isnillah mu xool mu fekk koo xamante ne dafa am boos mu mu mu ne ko ndigg li na noqartiku bi isnillah mu daal di nekk mu fekk ku dund mu ne ko kum bi isnillah mu daal di jóg taxaw xanaa kuy faj moom nga gis kuy dekkil ku dee xanaa kooko gën a garaaw kii day faj moom de day faj aka mën a faj ñu ne woo gis nañ ko ko gën a garaaw kan ñu ne kuy dekkil ku dee loolu olof yi naan kuy dóore moo mën kuy saaga du dëgg nitu Suleymaan lan la woon njabar yàlla may Suleymaan moom loo xam ne ay gaa yoo xam ne su ne damaa soxla dara ñii naan suba ma indi ko ñii naan ginnaaw suba benn waaye di naan ko léegi léegi balaa sa xef gi ñëwaat xoola xef xef xef nii cëtët yàlla mooy ngand xam ngeen xef lii lii dinaa ko indi balaa ngay xef mu ne anam mu ne mu ngi nii allahu akbar sunu borom moom dong moo mun a maye te ku mu may rek ñu xam ne may na la allahu akbar moo tax ku bàyyi yàlla ngay ñaan keneen alku nga parce que yàlla moo yor walillahi xazainu samawati wa xoolal walillahi xazain as samawat mu ne wal ard yaakaar ne asamaan kee sama mu ne wal ard kon kay mbir mi ci ma loxoom la nekk kon looy doyee leneen looy doyee keneen looy woowe keneen looy yaakaare keneen looy wóoloo keneen tey ngaa yaakaar yàlla wóolu yàlla yàlla nee na walillahi xazainu samawati wal ard mbir yi maa ko yoree kon ci xisasul ambiya da ngay gis ay yonent dëkk ya la ñuy jaay yàlla day yónni yonent boobu xam ne mooy ñëw moo leen ko dàq waaw ñoom dañuy ñëw di daaj ak di kii moom day ñëw ne defal mu daal di nekk gis nga loolu loolu moo amoon ci xawmu Yuusuf ay njabarkat yu dangereux la dajaloon yoo xam ne foo ko natt wees nañ ko waaye bi leen buur bi dajalee ne leen aftuuni fi ruyaaya in kuntum lir ruya taaburuun su fekkee yéen da ngeen a mën a firi génti kese kese kese tey nag mu ngi nii dañ dëpp gaa ngi nii acca bismillah ñëw leen allahu akbar ñu dajale kàngami dëkk ba yëpp ñëpp fu nekk ni firaaw na defoon firaaw na gis na Moussa yàlla yónni ko au lieu mu nangu ne kii yàllaa ko yónni mu ne njabarkat la mu yónnee ci biir dëkk bi yëpp bu doon tey bu doon tey Sénégal la ci biir Sénégal dëkk bu nekk ñu yónni fa benn nit ñu ne ko soo demee nga indi njabarkat bu fa gën a garaaw ñoom ñoom ñu dajale leen ci palais bi Firaaw na recevoir leen audience ne leen waaw yéen yéenay njabarkat yi gën a mag ñu ne waaw léegi lu ngeen bëgg ñu ne ko ah ndax bu ñu gañee loo ñuy jox bu ñu gañee a inna lana la ajran in kunna nahnul ndax bu ñu gañee loo ñuy jox lan la leen tont antum min al muqarrabin dinaa leen def ay ministre su ngeen di gañe ma leen di def ay ministre wala ma def leen ay ay conseil conseil li ngeen dégg tey conseil Sénégal ñaata conseil la président bi am dégg naa suñu benn président boo xam dañ dafa wàcc président bu wàcc daa fal ay conseil fal ay conseil fal ay conseil ba xàmmetu leen mu daje kenn ci fajar ci biir palais bi kooku nuyu ko mu ne ko yow yaay kan kooku mu ne ko eh kii man maay conseil mu ne ko conseil ku la fal ndax dañoo bëri ba xamatu leen dañoo bëri bëri ba xàmmeetu leen mu ne ko conseil ka ku ku ku la ko fal mu ne ko ah affaire bi fal fal fal ko de fal ah kon lu ma fi indi yaa ma fal kay sama bureau ngi nii mais dañoo bëri conseil conseil waaw man est-ce que suñ conseil yi ñu ngi conseil président yi ah la ilaha illallah lan la leen conseil mais benn président am des des- des milliers de pré de conseils ba pare def ay erreur kon kon lan lañ ko conseillé lan lañ ko wax kon xoolal suñu bopp xoola Omar ibn Abdul Aziz moom benn conseil la amoon Omar ibn Abdul Aziz benn conseil Omar ibn Abdul la amoon xam nga lan mooy kooku lan mooy conseil am toogal sama ginnaaw toogal sama ginnaaw yow sa fauteuil sama ginnaaw lay nekk su ma waxee ak mbokk yi ba càgg rek dóoral sama ginnaaw fii ci dox gi vërëb su ma gestoo nga ni ma Omar ragalal yàlla da ngay dajeeg sa borom yowmal qiyaam kooku loolu dong lañ ko fale la ilaha illallah lan lañ ko fale toogal sama ginnaaw rek su ma waxtaanee nit ñi ba ma bëgg a déborder rek dóoral vërëb su ma gestoo ne ma ragalal yàlla aka neexoon suñu président yi ñu am ñoo xam dañuy xëy ñu ne la hul àlla kaamaa yow hul àlla ndeysaan laa ilaha illa pourtant baat bu jara def sa kanam la da ngay dee ragalal yàlla Hmm. te boo dee ñu tekki lépp lépp la ñuy tekki billaahi wallahi taala lépp la ñuy tekk amatul ndomba tànk amatul conseil amatul garde amatul dara lépp la ñuy dindi ba mu sat wecc jaaro moo gën a tuuti nii la koy sàngkat bi di def teg ba pare naan xoola ñii ñii ñii xamuñu dara seen papa ngi nii dee montre bi sax tekki wuñ ko billaahi léeg-léeg nit dee ñu- woo ma ma ñëw fekk ko ci morgue ba dugal sama loxo ci poos yi ma fekk ci xaalis wala ma fekk montre yeeg jaaro yeeg nga xam ne ñi daal dee rek ñu sànni ci ab morgue ba waaw benn waaye boo xam ne xoolal papaam sukuraat sukuraat papa ji di sukuraat sukuraat ñu wooñu ñu daw ñëw ñu nag moom ci biir néeg bi ba paa bi sedd guy ñu def ci kees gi yóbbu ko dugal ko di génnaat mu naan waaye poos yi xool ngan poos yi poos yi nga xool ngan ndam ma ne ko damal nga xool poos yi ku la koy xoolal bi paa bi di sukuraat dafa daw ñu jëli kees gi mu daw ñu dugal ko ci mu daw ñu dugal ko ba morgue ba ne xool ngeen poos yi ma ne ko dama nga xool ko sa bopp xaalis rek xool nga an poos yi xool na paa bi weer bi daana leen talaara bi ngi la wax saa yi dama nga xoolal ko sa bopp ah gis nga nit ñi foofu lañ toll ndeysaan yal na yàlla yërëm kaay leen ngeen wax ma lan la lan la sama gént gi in kuntum li ruya taaburuun bu fekkee da ngeen a mën a firi gént ñëw leen ndeysaan gars yi daal di dajaloo def seeni xarfa fuufa xam nga yooyu sénégalais di def rek seen affaire yooyu pitaaw yooyu xool xool daal di sànni seeni buum ñi ubbi téere ñi jal suuf si tomb ba sonn gisuñ dërëm xam nga lu tax gisuñ lu tax gisuñ parce que lii du gént lii gis-gis la lu leer ci yàlla la jóge kon ay affaire u seytaane mënu koo gis mënuñoo fexe ba xam lii lan la te ay ponkal lañ ay expert expert u njabarkat yi lañ indi fan lañ mujjee moom qaalu adraasu ahlaamin lii daal ay feni gént la rek xam naa est-ce que reeroon nga bi ngay tëdd léeg-léeg nga gis ku ne man damaa gént sama papa dee ñu ne bi ngay tëdd da ngaa lekkoon ba suur yow dee lekk tuuti loolu la gars yi di may yow bi ngay tëdd da ngaa lekkoon lu bëri wala nga gént sa papa dee est-ce que loolu wax dëgg la nga gis ku ne man damaa gént rek nekk ci avion ñu ne yow da ngaa bëgg a tukki du loolu ñii moom dañoo xool ba sonn gisuñu moo tax ñu ne adraasu ahlaam ay feni gént la wala ak léeboon ak léppoon kese la du dara wa ma nahnu bi taawilil ahlaami bi aalimin ñun kat dëgg-dëgg mënuñu firi gént gi mënuñu ko mënuñu ko de ah léegi lan mooy problème yéen yéen lañ yaakaar ci dëkk bi yéen loolu la leen nit ñi wóoloo loolu lañ leen fi tege ngeen ne mënu leen ko su ngeen ko mënu léegi fu ñu jëm buur bi ne non daa di ngeen ma indil ku ko firi fii ma toog lu leer laa leen wax menacé leen ah léegi nag nit ñi commencé wax biir dëkk bi buur bi nee na fal force nit ñi firi gént gi waaw moo tax yenn saa yi am na ñoo xam ne bu ñu jëlee décision rek dëgg am parce que ñoom ñoo ko war a jël te bu ñu jëlee décision nit ñi liggéey ñëpp xalaat lu ñuy def lan la waaw benn benn buur dafa bëggoon moom kenn mu nekk buur éternellement mu woo xale yi mu ne ku nekk na nga dem nga rey sa papa ñëpp rey seen papa mu des benn booy benn xale dëbb papaam buñ ñëwaatee mu ne rey ngeen seen papa ñoom ne waaw ok dinaa xam ndax dëgg la wala dëgg mu ne damaa bëgg géej gi ngeen defaral ma fi benn immeuble ah immeuble loolu xam nga ne moom te su ngeen ko deful fii ak une semaine dama leen di rey yéen ñi ñëpp xale bu daan ñëw wax ko papaam ah papa buur bi waxaan na beneen affaire de mu ne lu wax mu ne nañ ko tabaxal benn immeuble ci biir géej gi te suñ ko deful daf ñuy rey mu ne boo demee nga ne ko na la jox plan bi xale yi daal di ñëw yow niñ koy defaree wala man kay xaw ma ko ñu ne taxawal fee yow xaw ma ko tax ñu ne ko yow mu ne plan bi ñu ne ko yow reyoo sa papa yow sa papa reyoo ko yow reyoo sa papa waaw parce que mag moom loolu olof yi nee nañ mag jar naa bàyyi mu reyoo parce que mag waaw mu ngoog yooyu du problème mu xale xale moom ay ay xalaat naka la moom yoonam nekk ci loolu moom am maa mag moom day toog di xalaat looloo tax olof yi naan la xale day taxaw du gis dara mag toog di gis moom mbir maa ngi ne le te moom dafa toog am na benn waay boo xam dañ ko tëjoon ak Yusuf te gisoon na Yusuf ci biir kaso bi mu ngi mu ngi firi ay gént yenn saa yi sax du firi gént mais day toog ba caag mu ne gars yi xam nga lu ngeen di ndékkee tey mu ne am omelette gars yi ne ah ah omelette daal di ñëw ñeneen ñu ne ko wax tey lu ñuy añee ah tey de moom wax dëgg yàlla maafe la de maafe bi ñëw su guddee mu ne xande ko lacciri gars yi ne wax kii garaaw na de misaal laa leen jox nag bu leen fi génne ne oustaz nee na gars yi cere la ñuy toog ay misaal laa leen jox pour ngeen dégg ndeysaan allahu akbar loolu ñu seetloo su leen nee lii lii la lii lii la lii lii la lii lii la ah ku am gént léegi ci biir kaso bi rek ñëw ne ko man kat damaa gént fàttaliku ngeen ñaar ñi nga xam ne dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon nax ñoo ne ko ñun dañoo kekk na ma gént man ma génn di continuer di nal sàngara sama xarit bi moom bu mu génnee dañoo gis ay picc di lekk mu yenu mburu ay picc di lekk mu ne yow mi nga xam ne da ngaa gént di nal continuer sàngara yow danañ la bàyyi nga dem mu ne yow nag dañ lay rey kon eh eh, dama la doon ndax mu ne xudiyal amru mbir yi passé na yàlla bind na ko ba pare moo tax albalaa mu wakkalun bil mantiq nit na def attention ci làmmiñam yenn saa yi nga wax dara rek yàlla def ko nga koy gis nit day mere doomam rek yàlla nga dee mu def deux ans dee def trois ans dee def ñaari weer dee yow la yaa ko rey yàlla la oto mbëkk loolu kenn du ko wax noonu nga mere di ko ñaanal lu bon ñaanal ko lu baax yal na la yàlla jubal wallahi allazi la ilaha illa huwa am na benn jigéen ba léegi daf may woo nee na man maa ñaanaloon sama doom lu bon munul tekki dem naa ba léegi yërëm naa ko mais xale bi munul tekki mais yërëm naa ko ndax kër gi ñëpp dem nañ moom moo munul dem te man mi maa ko ñaanal ndax dama ko daan mere di ko ñaan lu bon moo tax loolu baaxul te léegi rëcc na ko chaque jour mu ne ma imaam loolu amul beneen ñaan bu koy bu koy dindi amul beneen lii ah ñaanaat rek fa nga jaaroon jaaraatal foofu rek waaw loolu rek jaa fa nga jaaroon jaaraatal foofu rek ba yàlla dindi ko loolu moo tax def ndànk bi loolu amee kooku ne leen a kooku tamit dafa muus xam nga lu mu def daa rocceeku dem kaso ba daan na Yusuf baal ma àq de ndax bi may jóge fii danga ma ne woon boo demee nang ma fàttaliku moom tamit Yusuf yàlla pine ko au lieu que mu dem ci boromam mu naan waa jooju boo demee ci sa patron nga fàttaliku ma fa nga wax sama tur sax ndax ñu xam ne man maa ngi bëgg a def 10 ans ci kaso bi kenn jugé wu ma yéen da ngeen di jooy fii ku ñu jugé wu loolu la waa Sénégal di jooy fii jugé wuñ jiw wala nangam ak nangam ah Youssouf de dañ ko dugaloon ci kaso bi fàtte ko fa ba ki ko fa dugaloon dee ba jabaram màgget Youssouf nekk ci kaso bi rek léegi kooku jour boobu la xelam ñëw ne ah xaaral ma dem kaso ba bi mu demee mu ne mu ne mu ne Youssouf ñun man de damaa gént mu wax comme nu buur bi waxee Youssouf wax ko ko. au lieu bu mu ñëwee ci buur bi mu ne mu ne mu ne am na ku mu ne man la gaay na ko du yow waxal mbir mi mu leer xam nga ne yow lii mënoo ko xam yow la dañuy fonto kan moo la wax affaire bi waaw Youssouf la mu ngi ci kaso ba ñu ne wax nga dëgg allahu akbar gis nga yàlla lu muy jaarale réalité yi pour Youssouf mën a génn kaso bi da koy jaarale ay yoon bi gaa yi ñëwee wax ko ko mu ne man génn guma de ah man mën naa ko xam naa lan la waaye du ma mën a génn nii foog ngeen leeral sama dossier parce que dama war a bokk dama war a bokk ci candidat présidentiel yi leeral leen sama dossier foofu la leeral dossier yi commencé ah maa baalu niswatu fil madina jigéen ñi daggoon seen loxo ak ñi ma poñe woon bëgg léegi nga loolu lañ ma tëje woon kenn jugé gu ma waxaguñ ma mam noonu maa laal leeral leen loolu ba pare ma doog a génn ma doog a ñëw ndeysaan gis nga yàlla waa jooju bu mu ñëwee ci Yusuf lan la wax wa qaala allazi naja minhuma gis nga yàlla allahu akbar wa qaala wax na kan allazi waa ja nga xam ne yéen a ngi fàttaliku kii mooy kan naja muccoon na rëccoon na minhuma ci ñaari gaa yoo yële ñan la mooy ki waxoon ne damay nalal buur bi sàngara keneen ki ne man damaa yenu benn pañe bu am mburu ay pit ay picc tak ci di lekk kan moo wax wax ji mooy ka doon nal sàngara si ndax moom moo muccoon mu ne wa dakara baada umma yàlla nee na fàttali naa ko ginnaaw umma umma boobu xam ngeen ñaataat la saba sinin juróom-ñaari at la fàtte juróom-ñaari at la fàtte Yusuf ci kaso bi loolu yaa gën a de bu doon keneen la bu génne yow yaa bon yow ngay dem waa ji daa génn affaire bi neex mu daal di fàtte waaye yàlla moo ko fàtteloo parce que ab yonent warul sukkandiku ci nit ci yàlla rek léeg-léeg bàkkaaru yonent yi yu mel nii lay demee mais yonent du am bàkkaar parce que ñoom yàlla da leen a protéger almaasumin mais seen bàkkaar mooy lii ah yaa ngi dem waaw man de dinaa génn waa kon boo demee wax dëgg yàlla yenn saa yi buñ boo tegee buur bi comme yow yaa koy jox raisin muy naan nga ne ko waa yow mbirum Yuusuf nag yow waaw loo ci xam ndax sax xelam mën a nekk ci man mu daal ne nañ ma jugé ma génn waaye ba mu génnee yàlla dindi affaire bi teg fee waa ji topp noosam fàtte Yuusuf kañ la ko ko yàlla fàttali bu mu amee juróom-ñaari at ba événement bi am la xelam doog a ñëwaat ñu ngi wër ku mën a firi gént amuñu ko xelam daat ciy dem sept ans waaw kon Youssou yàgg na ci kaso de ah mbokk yi sept ans te sept ans yi mooy lim ko fàtte avant sept ans yi lan la te yàlla loolu la wax baada umma beneen bi mooy gis ngeen alquran baat yi ni ñuy àndee ak ni ñuy grawee ci firi baatu umma fii lan lay tekki ah baatu umma fii lu muy tekki siniin ay at wa anna hadihi ummatukum lu muy tekki nation xeet gis nga baat yi moo tax firi alxuraan danger nekk ci il faut que nga sukkandiku ci benn téere tafsir nga xool salafu saalix nañu firee woon baat yi nga firee ko noonu sinon rek nga al ko sinon nga jàdd nga wax loo xamante ne lu bees la ci firi nga indi nga am problème waa jooju ci boppam moom bi mu fàttalikoo Yuusuf ba pare mu ne leen ana unabbiukum bi taawilihi est-ce que moom la man kaay leen ma wax leen lan la gars yi daal di ñëw mu ne waaw juróom-ñaari nag yi nangam gars yi ne ko wana aan du yow du yow du yow yow amoo capacité bi yow xam nañ la yow tamit yow li nga mun xam nga ko raisin nga mën a jël def ko sàngara jox ñu naan loolu nga mun du yow waxal foo jëlee affaire bi ah bu mu xamee ne affaire bi sérieux na nag mu ne Youssouf la du man Youssouf la gars yi ne ko kooku fu mu ne mu ne leen mu ngi ci kaso bi di ngeen a fàtte histoire Zuleyxa ak jigéen ñi doon dagg seen loxo ñu ne wax nga dëgg ñu dem jëli ko ndeysaan nan lañ ko jëlee bi waa ji ne ana unabbiukum bi taawilihi fa arsiluun yónni leen ma su ngeen ma yónnee léegi ma dem indil leen ko ko firi ñu daal dem jëli ko ndeysaan génne ko mais biñ demee dafa bañ a génn biñ ñëw ñu ne ko Yuusuf gis nga ayyuha siddiq lu tax waa ji adressé ko baat bi c'est parce que gis na bi mu nekkee ci kaso bi ku dëggu la ku jubal la ku baaxal la ku wooteel yàlla la ku ko liggéeyal la ci kaso bi Youssouf changé na kaso bi ñi tëjoon yëpp changé na leen waxuma mu changé kaso bi waaye mu changé ba changé soldaar yi nekkoon ci kaso bi doon ko garder yar yi denc nañ ko denc nañu seen yi denc nañu yet yi kaso bi amatul tilim léegi ñëpp benn lañ lu tax parce que tuubloo la ñëpp ñëpp nekk nañ ay jullit foofu la tàmbalee liggéey ci biir kaso bi ndax foofu la ko message bi fekk fa la ko yàlla yónnee biñ ñëwee ñu ne ko Youssouf ayyuha siddiq aftina firil ñu leeralal ñu fi sabi baqarat simaanin yakuluhunna sabun ijaaf juróom-ñaar yi nag yu duuf yu am yàpp fees del yeneen juróom-ñaar yu xiif ba seen der yi ak seen yax yi di laalante di leen lekk ak juróom-ñaari mboq wa sabu sumbulaat juróom-ñaari mboq yoo xam ne xudar dafa verte ah gub waaw jërëjëf waay yow laa doon wër waay jërëjëf dama ko laaj tukulóor yi xam nañ ko mais fii xam nga ay boy Dakar ñoo fi nekk guba jërëjëf yow yaa nga ci toolu sëñ bi moo tax ah gub ok mu ne wa uxra yaabisaat ak yeneen yu wow laalli arjiu ila nnaas laallahum yaalamuun ndeysaan ngeen ma ko waxee nii su ma leen ko leeralalee su ma delloo ci nit ñi laalli arjiu ila nnaas ma dellu ci nit ñi nit ñan mooy buur bi ak gàngoor gi ak waa dëkk bi comme xabaar bi tere na nelaw dëkk bi te ñëpp yëg nañ ko wër nañ ba sonn amuñu ko ko firi léegi nekk na information dañoo bëgg ko ko firi ah su ma demee nag léegi ma informé nit ñi laallahum yaalamuun ndax nit ñi am information ne am na fi ku leer koo xam ne mën na koo firi loolu mooy dar sa tey bi mbokk yi ñoo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.